mbokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom mbokki jullit yi julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey bal xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jëkkal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci lu yéeme benn waaye ngi nii boo xam ne ku mat a dimbali la koo xam ne daa dox ci jëmmi boppam kenn woowu ko kenn ayiwu ko kenn waaru ko mu ne dafa bëgg dugg ci lislaam bunt ba mu jaar nag doon bunt ba xat ndax fa mu jaar dañu ko ne balaa ngay dugg ci biir lislaam gannaaw yaakaaru na moom ci boppam jëmm ci yaakaaru na da ngay joxe lii joxe laa loolu nag di lu yéeme bokk yi dugg ci lislaam su ko nit ki nammee luy gaaw rek moo ca war a gën a gaaw ndax dugg ci kët kuñ ci tegal ay gàllankoor ci alal ju mu war a joxe ak fu mu war a jaar fu bari ci ay jaaruwaay ba bam ba bañ ko cay dugal suñ ko ca dugalee ba wutul mën naa am mbett mbett ma koy dal mooy ñam jaare dugg ci lislaam ñum doon moo ne dugg ci lislaam day yomb na lool génn ci kay moo jafe ndax ku ci bëgg a dugg mën na daal dugg fa saasa yomb lool xanaa génn ci kay la ñuy wax ndax ku ci bëgg a génn du demee noonu moo tax benn waay dafa am fu mu jaar ci bunt bu mag dugg ci lislaam bëgg soxna fekk daa bëgg soxna ci jullit yi ñu ne ko alquran moo ne wala tankixu l mushrikina xata yuminu lislaam xamut diina ju nit nekk ku nekkut ci lislaam rek mushrik la ko tudde wala tankixu l mushrikina bu leen leen dencal xata yuminu mu daal di nangu daal di dugg ndax di yaakaar fi ñu ko war a may ku mu bëggoon ñu ne ko it faaw am na fu ñuy jaarale jullit yi bu fekkee jaare góor woon faaw mu jaarale la ginnaaw góor nga faaw nga jaar néegu góor mu ne ayca ndax kooku jaral na ko ko waaye li gën a am solo rek mooy gën a dugg na ci lislaam moom ñëpp a yomb moom ñëpp a ci yam moom jotee ci lam doon wut ni tuuti mu bëgg caa génnaat dem diisoo ak kam jaaroon dugg ci moom kooku di bunt bu mag nekk ku dugg ci lislaam ba yàgg mu bëgg caa génn kat dañuy dagg boppam ak baatam mu ne yéen diina ji diina ji metti ngeen yokk loo xam ne ku ciy dugg day am lu ñu dagg ci moom te bëgg a génn ñu dagg ñu dagg baatam ak boppam loolu nag la ñuy tegtale mooy bunt yi ñuy jaar di dugg ci lislaam moo am jafe-jafe ndax bare na ñu ciy dugg di ab lim waaye bunt yeñ jaar moo tuuti moo xat ci bunt porte la ñuy jaar bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne dugg ci lislaam jërut fay génn njëg jërut topp bi aw sas waaye nañ ko wax loo ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah gannaaw tax na koo jóg moom ma ngi ca xol ba ak lu mu ca mën a gàll rek na ci daal dugg gaaw su boobaa nag waxtu wa njëkk a jot ba mu fekke bu fekkee aggugu donte julli nañ ko ba noppi nañ ko daal di wan nañuy jàppe ak nu ñuy jullee keroog la koy tàmbalee war a fa saasa nee na su weeru koor ñëw su su duggee ci weeru koor rek la des ci weeru koor wa daf koy woo su taseeg mu am alal ju bari it dañ ko naan fi saasi ana ana sa alal mu ne mi ngi ñu ne ko coof ci joxe waaye neen daal ku ne laa ilaha illallah muhammadun rasulullah daal tamit dëgg ci moom dëgg gi moom man si na koo xam ndax moom man bu ko taxee jóg dëkk ak dëkk nee na su boobaa bu ko xasee ba wax rek lislaam duutu bocc gànnaay jëm ci moom xanaa lu dul lislaam yàpp la ci moom te su boobaa yàlla moo naan ñu def leen ak moom lii ak laa yàlla na ko yàlla déggloo nag moo tax suñ ki xasee boo wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci jullit yi la bokk kenn sañu tukoo takk taxawal ci da ngay joxe lii da ngay joxe laa da ngay joxe da ngay joxe ba mu bëgg a génnaat far li tax ma tudd ko bunt yi ndaw am na ñoo xam ne aw nit jaar nañ ci ñoom dugg ci lislaam mujj ñu génnaat ca loolu moom moo yées moom lépp moom ndax dañ dañ koy ka cay génn da ko naan la nga ma waxoon kat bokkut ak li ngay def ndax da nga ne ma woon waxtu julli wu jot na nga ñëw jàpp sàppe ci sàppe si bu fekkee jàkk la bu dul jàkk di kër bu fa ñaar ak ñett nekkee ñu def sàppe jiital kenn waaye gis naa ne boobu fi mu toll nii maanaan la waxtu julli jot na nga naan ma demal julli rek te musuma laa gis nga def ko kon damay génnaat ndax man la ma nekkoon wéroon na ci moom kooku nee na la ma nekkoon wéroon na ci moom kon du dugg ci loo du bàyyi loola ba noppi ñëwaat ci loo xam ne xamul ku mu cay topp moo tax aajawut laaj benn somm waaye lim laaj daal mooy ku ko taxawu ku ko taxawu leeralal ko baat yooyu mu wax lu muy tekki ba mu leer ci boppam ñu wan ko nag ne ko baat yooyu li koy tegtale ci ñun ñu mën a xam ñun nit mooy say cër di ko jëfe bu fekkee nag bunt bu ndaw la jaar boo xam ne bi ndaxte seeg moom rek ñu ne ko tuubalal kii moom ci boppam xamul luy ponk yi xamul ci boppam dara li dég maandu mooy mu yable ci ku ko xam ne ko demal ci diw ñoom waaye da koy daal di bëgg ngar dajjoo naan nangamam la daal di koy téye gàllankoor ko gannaaw bu gàllankoore boppam yàlla nu yàlla musal ci lool moo tax buñ ko nee da ngay dem ci fii wuti fa aw kayit walla faa ba mu nar a jafe ci moom ba mu tayal ba bëgg a génn lu metti la yow metti lay doon ak ëllëg koo xam ne daa war a wër di woo nit ñi ngir ñu dugg ci lislaam ci waraate wu rafet wu jekk xamal leen ne lislaam diinay yërëm la diinay bokk li nga am la ak sa mookum jullit diinay jox cër mag ak ndaw la diinay jox cër góor ak jigéen la diinay liggéey la diinay ñaq jarañu la ngir lan xam ne ëllëg gëm ne ëllëg mi ngi ñëw te atte ba foofa la su boobaa ku ko wonee noonu nit ki bu amee am xel waxuñu xam-xam faw mu nangul lislaam waaye su fekkee asalaamaaleykum waaleykum salaam rek waxi xaalis waxi alal bokk yi loolu mat naa teggi tànk yàlla na nu ci yàlla musal bokk na ci li islam bi jàngale it la mag nga daan wax ladabu ladabu mooy ay al adab rek lu nekk daa am ay adab ay adab lu ne jaarale nit ki ci bunt ba muy duggee ci lislaam ak nu ñu koy teqantale ba ba mu koy xam ba ba mu koy man di ko gën di bëgg waaye nag tudd naa bunt bu ndaw léegi am na bunt yu tuuti yoo xam ne mën nañoo dem sax bay fàttali waa ji lam daan def ba mu dugg ci lislaam te bëgg ko woon bëggatu ko fàttali ko gannaaw yàlla nee na woon afa allahu amma salafa la weesu moom yàlla amatu ci soxla soo ko ko bëggee fàttali banaa ko la nga doon def boobee ci yëf yi la bokk ndax boo ko defut fii da nga ko def feneen it musiba am na moo tax yàlla ne ku xas ba tuub yàlla suturaal ko mu suturaal boppam kenn xamulu ko dara ba lam doon def lépp mu def ko ba weesu afa allahu amma salaf wa man aada fa yantaqimu allahu minhu wallahu azizun du intiqam su ca nekkee di ko ŋawte ŋawtee waat te ña ko waroon ña ca waroon a xam xamuñ ca dara day mel ne daa tàmbale waat a jëf ndax am na ñu koy dégg ñoo xam ne da leen cay xiirtal dañ naan kon kat ginnaaw diw doon na ko def wàññiwul dara moo tax sëñ bu mag bi bind na ne ci benn téeréem nax ju qadaa il xaaj la weesu te melut na mu war a mel fàtte leen ko fàtte law leen ko it kii ñëw bees dugg ci lislaam ndax Seydina Omar siiw na lool ne mas nay def tawaaf tàmbalee xajarul aswad ñu ne boo ko mënee foon nga foo ko boo ko mënta foon nga junj fa tolloo ak moom daa dem ba di ko fóon xel mi ne yar na ci aw doj mu génnaat ne ko xam naa ne aw doj nga xel ma dem ca démb te bëggutu caa xalaataat mu ne ko bu ma gisutoon yonent bi def ko rek du ma ko daaf xam naa ne aw doj kese nga foofu la nit war a nekk la weesu na ko fàtte moom la suñ mag bi di wax ne bu kenn geesuwaat fakkatal yu ko daloon ci dundam bu xumalaa di ko fàttali kuy soog a dugg si ci lislaam moom lu yàlla ne cell te xam ko nga xam ko yaag moom ba nga weesu ko rik bu ko nit ñi xam soo bëggee sutura wala takun multafitan lil atharaat wala tubaaxis abadan an awraat waaye soo waxee ne soo ko bëggee leeralal la nga daan def bu njëkk faw nga fàttali ko ñam ko daan àndal di ko def xelam da ca demaat muy xool mu di leen xool ay bët te loolu lislaam daf ko ko tere woon alxuraan moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim bu leen di leen gëmm ginnaaw xas na ci gëmmu ba bàyyi fa ña ko doon defandoog moom bul ko fàttaliwaat laa taltamis min uyubi nnaasi ma sataru fa yahtika allahu sitran an masaawika wadkur maxaasina maa fihim ida dukiru wala tacib axadan minhum bima fiika kon boobu jaamu yàlla gu toll ni nit jaar ci yow dama bëgg a dugg ci lislaam benn nga laaj ko alal ju bari am na ñu ko jaral am na ñoon loo leen laajum njëkk dana leen ko jaral ba xam lu mu doon waaye nag foofu bunt bu tuuti la bu fay jaar rek mën naa génnaat ndax kooku alal la teg xoolul yàlla xoolul yàlla xoolul yoolub ëllëg bu mu ci nar a amee ndax yonent bi muy wax Sayyidina Ali ne ko fexe ba benn waay jaare ci yow jub xocc moo gën àdduna ak li ci biiram moom dafa fab àdduna ak li ci biiram weccee ko fexe ba benn waay jube ci loxoom foofu rek am na fi ak wuute ak njàngalem yonent bi ak joxoñam loolu mën na ko jural lu nekk ëllëg ku wuteeg yonent bi te xam ko yàlla wax na ñun ci alquran falyaxdar alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wa man yushaqiqi rasula min bacdi ma tabayana lahu alhuda wa yattabic gayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira kon fu waay demati ne daa bëgg a dugg ci lislaam bu ci kenn amagu rëy ndax garab bu la sutut du la mën a may kar na jàpp ci loxoom ba ca pénc ma pénc ma moom lañ tuddee fi ay maxaakim shar'iyya ku jaaxle ci diine ci pénc ma nga war a dem su demee ci pénc ma su laajee boroom pénc ma bu ko fa fekkee baax na su ko fekkut mu laaj ko ko fa nekkal kooka it bu mu ci amagu rëy su ko xamut mënu ko na seet ñi ko man ndax ñi ko man bari nañ waaye bu mu ko jàppee borom alal rek mu ne bu ko kenn yëg naa ko xuumtoo maag moom rek ngar dajjoo ko man kenn lu muy joxe jox ma ko jox googu baaxul su ko defee su noppee ñu bind aw turam ak ku santam ak adresse am ba ëllëg si biir lu xew ci moom ñu mën koo xam ndax nit faatu na ci ab dëkk te xamuñ jullit la wala déet amul seere te it ñuy way wattandiku di soppi ko di ko soppil aw santam ndax suur du soppeeku sant am nañu boole ci askan ñoo xam ne am nañ ci njaboot te boo leen laajee duñ xam fuñ ci bokk fuñ ci sosoo muy musiba mu rëy soppi aw tur day bu fekkee tur wam yor bokkut ak dara ci bokkaale yàlla mën nañ ko ko bàyyee. ndax Seydina Omar moom ma tudd ba mu dugg ci sam Omar la tuddoon bi mu doonee jurit ba nekk amirul mu'minin Omar la wéy di tudd Seydina Ousmane noonu Seydina Ali. turam bi moo jiitu muy dugg ci lislaam donte mus sa jaar ci leneen waaye soppiwu tur sax moo tane sant soppiwu sant moom sant uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fi ixwanikum fi ddin waaye bu mu tax ñu soppil ko santam nañ ko bàyyi mu sant nam santoon yor ci ay kayitam loolu lépp ab taxawaay la laaj doonul lu yomb loo xam ne rek dañ naan damay tuub si rek day tuub si rek ñu ne ko neel nangam ak nangam ak nangam ne ko santal yàlla kenn ku nekk kot ko ci génne aslëf jox ko ko baax na nag waaye am na ñoo xam ne soxla wuñ ku leen di ku leen di jox ñoo ëppale fuuf fa ñuy jaare ak ka ñuy dem ca moom ak nu mën a toll ñoo ko ëppale fuuf kon nag ab liggéey nga foofu boo xam ne bii xel demu ci woon ndekete yoo wares naa sàkk ci pénc yi ay waroomi xam-xam yoo xam ne loolu moo fa war doon seen liggéey ku ñëw ne day tuub ak lu jotaay ba xat-xat nañ ko yebal ca ñooña ñu fexe ba jàngal ko lëf ci diineem donte dañ ko fay téye ay fan mu toog fa bañ wan ko melokaanu lislaam mooy lan ci jëflante guy jëflante ak moom yal na nu yàlla dafa dégg ak topp te muur seen seytaane ki pakkam te boole nu gindi gindil boppam su ko defee suñ ko jaareeg moom fa ba noppi buy demit ñu boole ko ñoo xam ne ñoo koy sut ker ñoo koy sut ba mën ko may ker dëkk ba muy ñibbi ñu tànn ñu tànn fa it ñu ngi ko fay booleel bu demee wéyal fa lii mu tàmbali woon fii ndax sëñ bu mag bi bind na ci téerim boobu ma wax léegi ne waxuma la nga def àndandoo ki may bëgg a wax waaye bul toog ak moom sax toog lu mu gàtt-gàtt wala tujalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad lu jotaay ba gàtt-gàtt bul ko xeeb waxuma laa di siqa moom grand place fépp képp koo xam ne boo toog ak moom doo fa dolli ko ci sa wàllu diine wala am xel yéen ñëpp da ngeen a maase na mopp rek lu mu wax ngeen ngeen fortu si kese demal seeti fenaan waaye boo munta ñàkk ñoo xam ne it ku la gis laaj la leen wala ku la ku leen gis laaj la ko na nga ca moytu ñett ñii ku dese ku dese weesu wut koo xam ne alali àddina kese rek la gis defe na ne lépp fii la yam loolu pas-pas bu yàqu la pas-pas bu yàqu weesu wut defe ne àdduna ni ngay dundee fii rek mooy wéy bu ëllëgee loolu moo ne am na ñe yenn yenn xeet yu ko jàpp xeet yooyu ko jàpp moo leen tax di kër kër yi ne lu waay bari la fii muy ay oto ay kër ay villa ay suuf suy faatu day mel ne ku jéggi frontière bu dëkk rek dugg ci dëkk ba ca des ku jéggi frontière yóbbu ci dëkk ba ca des bu fekkee waajoon na ko ba muy dem ku ne xam ne du fa tumuranke ndax ma nga xaalis bu bari pas-pas boobu nag pas-pas bu yàqu la mboolem lu nit am fii fii la koy bàyyi buy dem lam fay fekk mooy lam dawaloon te doon ko seeral yàlla te doon ko def te yàlla tax benn muy ndigalu suñu borom wala mu naafi la ko tënk ko ci benn ci ndigalu suñu borom yi rek loolu rek moo ko fa amal njariñ waaye du yóbbaale dara saa su ne ñu gis ko saa su ne ñu gis ne nit bàyyi na fi lu nekk ñu laxas ko ay morsa rek mu dem ak moom mbàjj yu baax yi nga ko muuree woon sax dañ koy dindi jox ko ñu doon ñibbi sa kër ga ñu yóbbaale ko ak dénk wu rafet dénk bañ ko tegoon sax du demaale kon boobu pas-pas bu yàqu la mënees na cee dugal mënees na ko dugal ci néegu ko dese kon ku dese ku xel mi yëmbut nga xam ne xel mi lu gàtt la xelum bàyyi ma lekk ak naan rek boo ko tàllee lekkat goo xam ne posé na ca nekk sax ginnaaw lekkat gi def lekk la ñeme ne ko lekk lu ko cay dal tal ko waaye ku añaan koo xam ne danaan kii duma ko bàyyee kenn kat man rek maa ko yaayoo bu ko kenn xam na ñëw ba dem te bu ko kenn xam yàlla nañu ci yàlla musal wala koo xam ne lu mu gis bëgg ca lu mu gis rek bëgg ca lu ko romb mu defe ne walla ma nga ca te bu ci bëggee ba xoolee xoolee joxuñ ko ca nu mu ca mën a amee jaral na ko sëñ mag bi nee na kuñ dugal ci lislaam nañ ko tàmmal jikko yoo xam ne day lii ma wax ne day jëm ne mu jëm ne mu jëm nan ànd ak gaa yu baax yi wala tusaaxib in aradta suxba da safahin aw xasadin aw raxba yàlla nanu yàlla dafa dëkk topp te musul seytaan nekk bakkam yaxfiru llahu lana wa lakum wa lisaa'iri muslimina amin